ak Medina waaw lan moo xew mbër maa ngi lay bëgg. waaw da la lu bëri lan mooy coow li maanaam. coow li lépp lamb la rek jaam ak salaam xam nga góor fekk sa morom góor tax koy saaga te àndoon yàgg nga dóor ko lamb ji lamb ay wax lamb la. kan moo def loolu. non lamb la lu ne moo ci am lu nekk ci xaj ñu ñaan jàmm rek ñu dem ba bisu suñu borom may ñu ndam. coow li ah, non amul benn coow peut-être que ne tey jii doo xoolee euh, ba ci lamb am dayu. maa lay fay waaw. ci loolu yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla rek. ñoo yëg actuellement. waaw li ñu yëg mooy rek li daan yëg rek. waaw ñëw di nuyu waa Sénégal yëpp. téléspectateur u Leewtoo yeeg lu TV yëpp xam na ngi nii dugg si Lamine Savon ñu lay ziar ñu ngi lay fay la baalu àq si weeru koor gi korit waaw di baalu àq Sénégalais yëpp rawatina supporteru Gris 2 yi waaw di bëggee Sénégal di ñaan ci yàlla suñu dëkk jàmm sax fi actuellement loo yëg nii waaw la ma daan yëg waa ah, ñëw def fulla def fayda affaire booy a ñu dem ñibbi mhm. mbër muñ ne da yaa ko ëpp doole ngay bëri ak moom est-ce que yow da ngay confirmer yaa ko ëpp doole non man ëpp ma kenn doole góor balaa ko xam ñam ko buñ jàppantee ci la ñuy mën a xam mais en tout cas liggéey naa kon na ma daan liggéeyee ñëw ak esprit tranquille ñëw pour attaquer cogner gagner incha allah. man waaw bu ne lañ boo ko bëggee corriger ndax doo ci jëlee loolu nag. nit corriger nit indiwuma ci làmb dama ñëw ci làmb pour daan ñëpp ku ñëw pour daan ñëpp nag amoo koy corriger koy def lii. xanaa dañ laa dóor si gémmiñ. waaw dóor nañ ma sax fulul gémmiñ li ma daj daal en tout cas ci entraînement leer na ma ne duma ko daj ci biir géew gi. kon combat mën naa gaaw. man yooyu yëpp sama yoon nekku si man daal damay bëre rek damay ñëw daal ma daal indi laay indi. li nga yor nii lan la. dara lii boo gisee mag ñu njëkk ñoo ko doon yor rek. ku la jox lii. ah lii naawel la jugee maa ngi nuyu waa naawel yëpp dëkk maam Assane Assawaala ma ca naawel di waajuru soxna Jaara Buso maa ngi nuyu réew kilifa yi ne ci réew mi yëpp waa Touba ci waawan ahlu bayti rasul maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. combat buñ ne boo ko daanee ku ko daan ci yéen ñaar dem ci VIP nga koy bëree lool lu mu lay servir. loolu yàgg nañ ma ko wax mais en tout cas incha allah daal ñi ngi def lépp yàlla nañu yàlla defal sutura. Lagros maa ngi lay ziar. Babacar may naa la. Lac léegi mbër la wala sëriñ la wala lan la wala entraîneur la. ah seetal rek foo ma teg rek ma nekk fa. dama laa gis nga topp ci ginnaaw mbër gàddu saak yor ay bagages. waaw mbër boobu jaral na ma lu ne. jaral na ma lu ne bu bu woon tey ma bàyyi sax damay bàyyi pour moom waaw ndax séq nañu lu raw loolu. tey ngeen jëm si combat. yaa ngi dégg Gris 2 Reug Reug ñëpp xam nañ Reug Reug ñëpp xam Gris 2 actuellement yow mi nekk Gris 2. Gris fi mu nekk nii ci ban état de forme la nekk. waaw sant yàlla rek moom moom musul ñëw ci làmb te parewul bi mu dalee ba léegi day pare combat am instant bi pare nañu ñoo ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xalaat nga ndam lu yomb. yàlla nañu yàlla may ndam lu seddu guy ndam lu yomb yomb ndam lu gën a yomb ci carrière am ci kàttanu Seydina Muhammad. <laughs> giree ngongu toog Talla Ndiaye gis nga Fall volcan bi mu yor kenn ci ginnaawam Tafa Junior la rakku Papa Sow koo koy Junior lagros itam seen naa ko muy ñëw. Lac Rose ci ginnaaw mu mel ni ki daal fi mu nekk nii ñoom combat bi dañ ko jël au sérieux kon nar ta yom ci diggante Fass ak Thiaroye ndax Reug Reug moom ku ko xam xam ne du mbër muy maye dara. maa waaye ñu ngi leen di dolli ci loo nekk. waaye ñoo ngi ci jàmm. yaa ngi ñëw toog si ginnaaw mbër mi de actuellement. waaw euh, xam nga boo amee sa doomu nday mu war a nekk ci mu nekk ci wàccaay donc noo def jege ko waaye. sa diggante Gris 2 waaw sama diggante Gris 2 loolu dafa yaatu trop dafa yaatu sama waay la man maa ko bëggal suma bopp quoi. combat bi mën naa yomb ci moom. Euh, li ma leen waxoon rek man leen bu deewee ci àll munu koo dippi te loolu moom mooy am waaw. kon daal da ngeen xalaat ndam laa ngi seen pos non moom ñu téye loxo nii. rëg ngeen di bëreel de. mooy kan. ah man ci lamb simple ji te daanagul ci lutte avec frappe. waaw làmb simple ngay wax waaye kii moo ngi ci lutte avec bi. te xam naa ne bés bu nu taxawee di ngeen ko xeb waaye maa wax loolu. nguy dugg si moom tamit ànd ak ay nitam dafa dégradé wax nga dëgg <laughs> maa ngi seen kulifay deux ndeysaan Lamine nga ne mu ngay joxoñ de waaw mu ngay joxoñ de mu ngay ko andi mooy menacer Pala koy menacer ko andi Daawur may leen ñu ko bokk Daawur may ñu tuuti rek daawur mënoon nga ñoo rëg champion bëgg naa la rëg kii mooy toog si loolu du problème voilà loolu nga ñuy wax rëg ngay dem di wëri palaasam fa muy toog lamba ju nar a metti ngay gis samedi stade wala arène nationale arène ndaysaan mu ngi noonu taxaw doomu caaroy bi le grand champion Reug Reug mu ngi ndaysaan oh mu koy joxoñ taala am na lu kee di fëgg rëg rëg am na lu ko sotti mu ngi koy sangu laa ilaaha illallaah joxaat nañ ko ko de mu raxas bopp bi lamb ju metti ngay gis Talla Ndiaye parce que kii doomu Caaro la kii doomu Medina la ndeysaan ngi lay bëggee champion bëggee naan rek doo wax ak ma lay bëggee delloo ziar ci loo ne baal ñu àq si weeru koor gi ñu jógee nan la baal la ñu àq ñu ngi baalu àq euh, Sénégal gépp nañ ñu baal àq ndax ñun amal nañ leen àq ñun bëri ñu ngi leen baal axa nañ ñu baal axa waaw yal nañ yàlla boole baal ñu fekkee déwén ni déwén waaw yéen a xam li ngeen bëgg yal na la yàlla defal si si kàttanu suñu borom. Reug Reug combat daan bëre ak combat bi dafa am différence wala. du différence ñun duñ yanu làmb nu mu ñëwee rek noonu la ñuy nañu ciy duggee. mbër mooy bëreel am ñuy wax ne daf la ëpp doole ñen ñi yaa ko dàq bëri yow loo si jàpp da ëpp doole wala yow yaa dàq bëri. non non euh, man xale laa dañuy entraîner di di nelaw di récupérer di lekk-lekk bu baax sunu morom góor du doole jamais de la vie lool du am bu demee ba am ma bàyyi tegi sa joratul may bëre. Euh, moom ne na combat bi bu yàggee bu yéexee lu mu ci mën a doon arrangé na ko yow bu la gënal yow. combat bi du yàgg si kattan sunu borom. lu tax du yàgg. non dama ko xam. lu tax da koy tegal lu métti jëlee ko fi wàll. combat bi ñu ngi du yàgg si kàttanu suñu borom di ñaan nag yàlla may ñu ndam. ci xeex lay jeex wala bare non lu ñëw rek ñu ànd si. yee waaw di jaale tamit suñu benn kilifa muy sunu maam muy Baye Birane ñu koy jaale waa Séné waa Sénégal surtout waa Thiaray ak ay doomam yëpp ndax ñoo ñooñu ay doomam dañuy sonn suñuy komba kon ñu ngi koy jaale waa Thiaray géej yëpp waaw. samedi ñëw na ba pare léegi Reug Reug ban appel lay mujj def ay supporters ma kay soppeem. waaw di leen wax na leen ah, combat bi samedi la waaw ah, di leen oo di leen wax esat midi ku mu fa fekkul doo dugg. midi waaw la nga defoon Léopold Senghor lu ko raw ngay def. si kàttanu suñu borom. ci ambiance. lépp géew ba lu fay xew maa koy dégg maa koy dogal. yaay nekk buuru géew. kàttanu suñu borom géew ba lu fay xew maa man maa koy man maa koy man maa koy maa koy def si kàttanu suñu borom. yet moom. yet du dara. yéen koo xaw a ragal na kaa jox du dara. koo dara lii lii moom du dara. Uh-huh. maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo Babacar di nuyu waa Leewtoo yëpp ak waa Lutte TV waaw. jour si mooy sax cinq laay wax xaw parce que samedi ngeen war a bëri arène nationale actuellement jën lu muy actuellement xam nga alhamdulilah ñu ngi yëg ak salaam. waaw di di xaar jour ba rek di ñaan yàlla yóbbu ñu si ñun ñëpp si jàmm ak salaam rek yàlla mooy ñu ndam. mbër moo xam ne yaa ngi bëreeg moom ñu bari naan est-ce que dàqu laa bëre yow da ngay nangu ne dalaa dàq bëre wala ñaar ku dàq bëre. ah waaw na jël na jël moom moo ma dàq bëre na jël na jël ba jour ba incha loo koy dencal. ah waaw lu bari maa ngi ciy liggéey ak samay mboq lépp daal incha allah dinañ gis lu bees sàq soobee yàlla si jéen waaw. lu bees lu mel nan ci bëre wala xeex. waaw ñaar yëpp ndax bëre door la si ñu ciy liggéey bu baax a baax a baax waaw. seen combat mën na gaaw. ah waaw mën na gaaw mën na yéex parce que sport de combat la quoi mën nañ ñëw daje mu jeex mën nañ mën nañ jël suñu temps tamit waaw man ñaar yëpp ñu lay xale lañ waaw fu bu mën di ñëw rek neex na waaw jaay waaw kontaan si yow tamit waaw. non père da war a wax. maa ah. Ah. diggante Bécaye Liss diggante bu yàgg la lu yàgg dëgg la diggante bu defee vingt ans moom dafay passé vingt ans ci làmb ah man nag sama relation ak moom passé na sax vingt ans ah et puis mais bu dee ci biir làmb bi ku koy faate feete vingt ans it ma bokk ci feet bi ndaxte ci vingt ans yi la bokk. ci vingt yi laa bokk. baal naa la yal boole jéggal. yal ko yàlla boole ci barke yonent bi ñun ñëpp mu jéggal lu. Père Bécaye sax léegi mu neexee mu ne polyvalent quoi Père Bécaye polyvalent. polyvalent ci la ci liggéey bi. polyvalent ci liggéey. waaw non man damay liggéey man ci réew mi laa bokk. waaw ku xeeb sa bopp man xeebuma sama bopp man damay liggéey ku ma soxla ma liggéeyal la. ku ma soxlawul it amul problème ma dem sama rajo ba wax fa man sama waxu démb mooy sama waxu tey waaw. tey su ma la laajee si combat Gris 2 ak Reug Reug ñii ne Gris 2 moo ëpp doole ñi ne Reug Reug dàq bëri yow en que technicien boo xam ne xam nga leen loo may wax si loolu. waaw boo xoolee Gris 2 day niroog doole mais volume ak doole du benn am na volume am na doole xale la mais Reug aussi am na doole euh, bëri la boo xamante ne ni combat la bëri mooy daan. du doon combat fla-fla déedéet déedéet ku bëriwul dëgg doo daan ñoom ñaar ñëpp muy Gris 2 di rëg-rëg champion ci lutte traditionnelle wane na ko waaye nag lutte traditionnelle ak lutte avec frappe dafa wuute de trop mën nga doon leader ci lutte traditionnelle nga ñëw ci lutte avec frappe nga am fa problème mais rëg-rëg nag boo xoolee bi mu ñëwee ba léegi je touche du bois mi ngi géré te yaakaar naa ne mi ngi géré euh, Gris 2 et eh, Gris 2 yaakaaru Fass la parce que Fass ah. ku mel ni Gris 2 ak euh, Serigne Ndiaye numéro 2 ñaar ñooñu ñu ngi leen di bàyyi xel ñu ngi leen di bàyyi. Reug Reug na combat bi day gaaw Reug Reug nee na ma combat bi day gaaw. am moom moo ko wax est-ce que du piège bu muy tëral noonu rek. parce que d'accord nga ci li mu wax wala. non combat bi mën naa gaaw. mën naa yeex mais li tax mu gaaw bu dee daf ko bëgg a te ko tegul ci yoon rek dina am surprise waaw pour mu parce que mën naa gaaw. te neex bëri nañu combat ci une minute mu dàq combat deux minutes moo tax lu ciy def rek nan ko xool ba xam. ku ko daan fan la lay yóbbu ñoom ñaar combat bi. ku ko daan génn nga waaw lambu barrage la. waaw ah, barrage pour ñan. ñoom ñëpp ñi ci kaw xanaa yow dafa am ñooy bañ a tudd ak yooyu. comme ñoom Balla Gaye ak ñoom Gris ñoom Tapha Tine ak ñoom. parce que fii boo fi jógee ta ngay yéeg fii bu fi jógee rek yéeg na Gris 2 bu daanee wala Reug Reug bu daanee yéeg nañu léegi ñoom ñooñu la ñuy wëri.